jéem a wéyale lettre boobu yi nga xam ne ni sëriñ bi bindoon na ko muy ay ndénkaan te mu jëme woon ko ci mboolem jullit ñi waaye rawatina taalibe yi muy guddi gi mu mujj fanaan jolof te démb ak barki démb ñu indi woon ci ay dog tayit ñu indi ci ay mm, leneen loo xam ne ni loo ama am solo la kon fi ñu yemoon démb nga xam ne ne sëriñ bi daf doon dénkaane ba agsi ci Euh, na ngeen mën a muñ te am kersa daf ca teg ne nangeen di wax lu baax te di ko jëfe na ngeen am sutura te am wollare na ngeen yéene ñépp jàmm tey sàmm seeni kàddu nangeen farlu te am faayda nangeen ngeen laabiir tey tànn ay àndandoo bu leen iñaan bu leen siis aw leen ci siraatul mustaqim te bu leen ko wàcc mukk bu ngeen jógee fii ba dem ci réew ma bu leen def fu leen neex dem bu leen def lu leen neex def bu def lu leen neex wax bu leen def lu leen neex lekk bu leen def lu leen neex naan lii ma leen dénk ku sàmmonteeg moom danaa la sàmmal sama boppu ba jofal la kon loolu bokk na ci dénkaane yi nga xam ne nii dénkaane woon na ko buñ ko buñ ko seetee nag fii wax ji tàmbalee ba fii euh, loolu mooy diine te mooy lislaam dafay boole imaan ak islaam ak ihsaan wala dafay boole tawxiid ak fiq ak tasawuf dara génn ci loolu kon waxtu nekk kàddoom yooyu nga xam ne ni daf koy denkaane te muy sunu njariñul àdduna di sunu njariñul àllaaxira waxtu nekk war nañ koy fàttaliku di ko jëfee te xam ne ni ba mu koy digle day boppam taxoon ndax moom mosu caa ñàkk a nekk kon ñun ñii ñoo taxoon kon nañ ci farlu Cheikh mun Mountakha itam yéene ñëpp jàmm moo tax mu bëgg ñu yaatal ko bëgg-bëggam boobe nag ci la ñuy barkeelu ngir di ko yaatal ndax du ñàkk ñennat ñoo xam ne buñ ko déggee danañ jariñu waaw fa zakkir fa inna dikra tanfaxul muminin loolu rek lañ ci jublu fa zakkir in nafaati dikra dem fàttalee dana jariñ ah kay am na ñoo xam ne ni kay boo leen fàttalee lu baax wa ala kulli xaalin faw seen xol dana yëngutu danañ ci mën a jariñu yàlla na yàlla boole ca ñooñee ñoo ngi fàttaliwaat waa daara xikmatul yawmi ak képp koo xam ne nii rek xikma bi yaa ngi koy safo siyaara bi ñuy waajal Mm, ngir def ko siyaara euh, jog a Cheikh Mouhamadou Mountakha fisahullahu wa raa euh, dimanche le 9 février 2020 incha allah ku ci bëgg a bokk nga teel a woote ñu man la bind ñu xam nombre bi dem incha allah balañ sa àgg ndax organisation bi mën na jël seeni matuwaay ci yu bare bare bare bare ku ci euh, mënta demit ngir tànk bu diisit incha allah ni ma ko waxee démb rek lépp loo ci joxe tem jëm ci sëriñ ba euh, du du du jaawaloo du réer la waxoon démb ne moom la sëriñ Tuubaa waxoon rek fii kër lees fi sànni foreef ko te lees fi for du jaawaloo du réer waaye nag ñi bokk ci xikmatul yawmi ci euh, groupe yëpp li tàmbalee benn ba juróom ñoo ngi sàkku ci ñoom ku ko mën ku nekk donte aw ñaari téeméer la nga joxe ko bu ko defee ñu boole ko euh, ci luy yéwénal siyaar bi jox ko sëriñ bi àddiyee ngir gaaral ko liggéey bi fiñ ci toll da dellu cee dolli cee sàkku ay ñaan siyaar ji sëñ lu war la te it léegi lu yomb la ndax mag ñi dañ daan dox di dem gànnaar di ko dox ñaari weer ak ñett di jéggi ay coono ak i jafe-jafe yu métti ak di dem jolof ñu leen di laaj ay fay tubaab yi di leen bëgg gàllankoor di leen laaj lu mel ni visa ci seen réewum bopp waaye dañ ko daan fay ngir bëgg a àgg ci Serigne Touba ñun nag wax dëgg yàlla jóg rek dem dox tuuti dugg ci sa eh, waruwaay wu yomb yomb incha allah àgg siyaare sëriñ bi loolu yaakaar naa jàppande na kon ñoo ngi ci soññ suñu bopp di ci soññu ñëpp ku ci bëgg leeral nga woote ci 77 712 44 71.